jërëjëf ba ma mayee damay tontu d'abord ci li nga wax ni c'est une catastrophe bu refléter mais ñun nekkuñu fi pour wax li war a nekk parce que ay universitaires la nous sommes des scientifiques on part des faits mhm. dañuy analyser objectivement li ñu gis ñu wax li nekk li war a nekk waxuñu ko de mais li nekk la ñu wax les faits est-ce que c'est une catastrophe université refléter société bi moo nekk violence bi am université moo nekk ci société bi de façon je, générale je pense pas je pense pas waaw laissez-moi développer s'il vous plaît euh, ñàkk gi nekk ci famille yi ak ci biti moo ak si université laalu ko ñàkk gi sa papa bu la mënul jàppalee nga jënd livre walla nga euh, lekk bu dee codifié woo amoo. mën naa wax tuuti benn waaw ma may ma ma àggale bi ngay wax dama la déglu baal ma rek. ma ma expliqué wu parce que dama ko tënkoon. Mhm. mais merci dama donner locasion dugg ci xóotal ci biir dama ni man bu ma ñàkkee du feeñ sama doom ak fu mu mënti nekk. man bu nekkee ni man sama panier ménagère dafa metti matalu ma dépense te ma war a dimbali sama doom bi war a paas pour dem université du feeñ si moom. Mhm. et j'en violence conjugale yi dox ci biir kër yi mais mi ngi université parce que xale yi ci kër yi lañ jóge dund ko des fois avec les parents ak l'environnement familial mais xale yi jóge wuñ ci asamaan bi wàcc les étudiants. ci kër yi lañ jóge. absolument te bu ñu nee euh, bu ñu nee université il y a plusieurs acteurs c'est un système. Mm-hmm. il faut pas que ñu jël enseignants chercheurs yi rek sans les étudiants il y a pas d'enseignants chercheurs. te étudiants yi fan lañ jógee ci société bi lañ jógee fa la ñuy dellu d'ailleurs bu école bu université tëjee dinañ def trois ak quatre mois seen kër yi ressourcé waat dundaat ak seen njabooti soog a dellu si waat mhm. kon mënuñu ko dissocier moi je suis dans une logique d'approche sociologique scientifique je par des faits constater li am jéem ko expliquer mhm. nekkuma pour def jugement de valeur ndax c'est une catastrophe ou en tout cas lii moo am bu ñu bëggee comprendre objectivement li xew nañu génn domaine politique rek. d'accord léegi. il faut ñu yaatal gis-gis yi. départ ci société yi wàcc si lan moo xew d'ailleurs léegi université yi de plus en plus autorité euh, rectorale yi ñu ngi koy wax il faut que université yi gën a ubbeeku ci li population yi di dund. Mhm. li nit ñi di dund parce que avant comme ni mu wax la gis-gis boobu université dafa war a nekk un carcan tëju di def recherche fondamentale. di nekk seen biir détaché du reste de la société alors que la société la l'université doit être au service des besoins de la population